Euh, bu koor jotee rek ñu daal di lal seeni feebar mhm. ak ñi nga xamante ni nii euh, seen i borom kër day am estomac koor gi ñu leen ci naqaral ah li ci yëngal seen i sëy mhm. ndax nee naa la sa jëkkër bu woree ba ngoon jot war nga koo mën a jàppale mhm. jox ko loo xamante ni war na koo mën a lekk ba mu mu biiram fees mu ànd ci ak wér gi yaram yaay ci waxtaan wi la ñuy dugg tey mhm. di laal nag fépp foo xamante ni nii rek góom la tey dañ koy laal waxtaan waa ngoom mhm. muy wàccaayu koor macha allah ñuy waxtaane lu am solo li naan defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal tubaar fa kàlla macha allah yal nañ ko yàgg fekkee allahumma amin di ñaan yàlla dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin mhm. daba fi ne macha allah koor gi jeex na. koor gi jeex na. yaay duggaguñ ci di. jeex na. dëgg la. lu doon nga ni jeex na. dafa jeex. lu ko jeexal. sakam ak moo gaaw rawatina weer. wallaay. rawatina ay bés. Mhm. macha allah kon koor gi jeex na kon nañ ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah boole ñaari boole ñaari baalu àq. muy baalu ak weer wi ñuy séentu ak baalu ak weeru koor wi ñu jeexal ndax jeex na ba nuppi mm-hmm. te dinañ ko xaat incha allah dëgg la ñuy dugg ci lu am solo di waxtaan ci wàccaayu koor fi ma bëgg sax ñu bëgg ñu gën faa xuus mm-hmm. mooy jéeg gi nga xam ni koor day ñëw yaakaar nañ ni bagage yi koor rek lañ ko mën a am maa la ko wax de surtout loolu ndax suukaru koor yaa ngi koy wax mais loolu sax tem la mm-hmm. kooku dinañ ci ñëw incha allah dinañ ci ñëw. Mm-hmm. waaye daba ci jéeg gi nga xam ni. Mm-hmm. weeru koor yaakaar nañ ni ci lañu war a am nàpp weeru koor ci nga war a mën a am kudd bu rafet. Mm-hmm. weeru ci nga war a mën a am kaas say vaisselle ci nga ko war a am. dressé ci nga ko war a def ci nga war a toggee lu baax d'accord. ndax benn repas la am na ñoo xamante ne si bu ñu naanee kafe rek. dañuy teg seenub reer reer ci ba suur bu ñu réeree bu suur subaati la ñuy lekk mm-hmm. bari na ci borom kër yoo xamante ni si dañuy def loolu mm-hmm. waaye dama ni la weeru koor budul weeru koor sax utal say vaisselle ak say bagage rof nag yàqul jën déedéet ndax gan la goo xamante ni si gan gu màgg la ñu mm-hmm. koy teeru ñu di ko teeru buy dem ñu war koo gunge buy dem ñu war koo gunge macha allah foo génn ci mbedd mi yaa ngi gis ñi ngi jaay vaisselle yi mm-hmm. foo génn ci mbedd yi yaa ngi gis jigéen ñi ñi ngi jaay ay nàpp yu rafet di ko préparer seeni borom kër mm-hmm. waaye am na ñoo xamante ni si loolu mënuñu ko dëgg la soxore nañ ko seeni borom kër kon dañuy wax ci ñaar yëpp mm-hmm. ku mën defal dëgg la ndax weer wi weer wu màgg la tubaar fa kàlla macha allah yàlla yóbbu ak jàmm nañ ci woor ak suñu teeyu bakkan yàlla bu mu mel ni xare badar amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dama ni la mhm. jéeg ji ko mën mhm. jéeg ji ko mën dañuy changer ay bagage dund ak bagage yooyu ba déwén mhm. bu déwénee ñu changé waat bagage ndax loo def ci sa borom kër def ko ci sa goro def ko ci sa njëkk jigéen ak jarbaatu jëkkër sax aayut dëgg la rawatina borom kër bi nga xamante ni si moo yëkkati ab du tam jox la aayul. Mhm. sopp naa ko bëgg naa ko. dëgg la bëgg naa jeeg ji di def ba mu baax ci loolu. Mhm. waaye koo xamante ni si mënoo ko bul ko lebi bu ko lebi. Mhm. bul ci bokk tontine. ndax am na ñoo xam ne dañ koy bokk tontine mm-hmm. te weeru koor frais bi dafa bari mm-hmm. yàlla boo doon ak jaboot mm-hmm. di xaaraat leneen ndax fukki fan ak juróom bu ko xasee ba dem ñu dugg ca korite tubaar fakkaa la macha allah moo tax ma ne la woor nañu waaye wari nañ maa la wax loolu de rama waaye dégg nga uh-huh. léegi nag bu fekkente ni si dañ koy def bokk tontine tontine bu metti ak say frais sa borom kër la mooy dajale ku néew mu jël ko indi ko mu néew ak mu bari lépp loo ci mën a def na ko ci def rafetal ba mu rafet. Mhm. waaye bu ca duggal lenn loo xamante ni si après daf lay sonal wala muy sonal sa borom kër. Mhm. wàccaayu koor nag macha allah dama koo bëgg. Mhm. bëgg jéeg ji di ko waaj di ko def bu baax a baax mais bagage yi nga xam ne moom la ñu jëndoon. daaw ku ko ci mënul bagage yooyu nga la nañu raxas ba mu set. Mhm. denc denc mhm. napp yi dañu fóot ba mu set denc ndax du koor kese la ngay añ mhm. du koor bu dul koor dangay ngay ndékki da añ dangay reer man jigéen taamu am benn vaisselle boo xamante rek bu koor jotee da ko denc jigéen pour man euh, yu bari jigéen ci ñi ko mën ci ñi ko mën surtout war nga chaque jour nga tegal sa jëkkër termus bu bees tegal ko ay taas yu rafet. Mhm. defaral ko ba mu mhm. baax. ndax nee naa la. Mhm. góor. dafa bëgg lu baax. dëgg la ñun ñii di jigéen tamit bëgg nañ lu baax ndax boo toogee di ndogu yàgg sa borom kër xamoo ko ci yem. xamoo kan moo ci yem kan mooy ñëw. Mhm. Ah, fekk nga lal mu toog di ci lekk ku de mën na ci yem. dëgg la kon yow na nga fexe ba bu tay jii. Mhm. boo tegalee sa jëkkër ensemble bi mu nekk bu subaa génne waatal beneen. Mhm. waaye nag bu koor gi jeex rek nga arrêté. am na ñoo xam ne koor ba koor la ñuy génne dañ naan feselu koor. bu koor gi jeexee ñu bàyyi ko. loolu laay mel wala sa doom jël kaas yëpp teg ko. wala mu jël tërmuus ba teg ko. wala sa doom yàq ko nga ne ah man sama bagage daal di négliger. càggante weesuwul càggante waa weesuwul foofu. càggante man damaa bëgg li ngay ndogoo. muy vaisselle yu taaru. Mhm. bu koor gi jeexee. ngalawaay bàyyi bàyyi di ko doxal. di ko doxal di lalal sa jëkkër nàpp di ko tegal ay vaisselle li mu bëgg nga di ko ko defal macha allah bu fekkee sa jëkkër faj jar lay xëy di liggéey rama chaque jour moox ko. nee naa sa jëkkër buy liggéey war naa am termus ci otoom boo xam ne da nga ko ciy defaral café Touba. wala café bu mu mënti doon. wala nga jël sa boolu 24 heures defal ko ci ndékkeem ba mu baax dugalaale ko ci otoom bu bàyyi sa sa jëkkër xëy liggéeyi ak vidde noonu. waaye luy ndey sax dugal ci ci ci ci ci. bu fekkee yorul oto nag. dëgg la bu mën a yorul bool di dem. ku yóbbu añ dëgg la hôpital bu yorul otoom fexeel ba balaa nga génn ci kër gi mu nekki merci beaucoup bu nekkee daa di dem ba ñu yóbbaale ab xiif waaw koy góor ndax nee naa bor ku ko teral tëral ko mhm. sa jëkkër même bu dee dafa doy waar sax boo ko dëkkee ci di ko defal teraanga bu yàggee mu wan la kanam mhm. kon li nga wax Rama am na solo waaye bu koor gi jeexee nga jël say vaisselle denc mhm. sa borom kër bu xëyee di ndékki nga tegal ko kaas boo xamante ni am ñoo xamante ne ramaat respecté ay ay kaas bu rafet ak eh. vestal bu rafet pour nga koy tegal seen dikk am na ñoo xam ne def faale wuñu loolu kaas bu bu njàppukaay bi dam dëgg la moom la tegal jëkkëram am na dafa am yàlla mi ma tim xam na li may am na kaas boo xam ne njàppukaay bi dafa dam baraada bu amul kubéer nga jàppe ko kubéer euh, kiwu njegenaay mbubu ngegenaay yi mhm. la jàppe baraada ba rek ñëw daal di teg boobu jeeg parewul mbubbu njegenaay laa wala weeru koor jot day dem sa moroomu jeeg di ko àbb ay vaisselle naan ko aal ma ñetti kaas benn termus bu koor gi jeexee ma delloo la ko aw ma ay vaisselle yàlla nañu yàlla musal ci boobu jeeg te am na nag rama am na bu baax a baax a baax mm-hmm. aka am a mm-hmm. am ak jël say jus defar ko ba pare def ko ci bàyyi ko ci butéelu Evian yi teg dëgg la surtout loolu te war a am sa karaaf yu rafet yoo xamante ni si moom nga koy tegee. subaana ma jéeg bu bari vaisselle man damaa bëgg. waaye jël sa sa plate teg. Mm. jël butéel yi nag da ngay wane ne da ngaa jóge noonu. d'accord waaye nekkul ci cérémonie. sa biir kër nga nekk. dañuy waxtaan ak jéeg gi xasuñu kenn. blâmé wuñu kenn waaye dañuy waxtaan ak yéen. Mm-hmm. ndax nag macha allah liñ naan ku yàgg ci njaw ni njaw. Mm-hmm. xëy na nag duñu mag ay xale yu tuuti lañu. Mm-hmm. waaye ñaar fukki at. ak nàngam boo ko defee ci sëy yaakaar naa ne war nga caa xam tuuti mm-hmm. ñaareel ba nga yeewoo ci kër goo xamante ni si kër gu mag la mm-hmm. këru kujje sëy ci kër goo xamante ni si kër gu mag la doon kër kujje kon lu tuuti rek war nga ko cee mën a xam mm-hmm. dañuy waxtaan rek ak ak dëgg la gis nga daba gis nga góor li nga wax léegi góor ku ko sonnal tëral ku ko teral tëral ko ku ko teral ko billaahi gis nga sa boroom kër loo def ci moom suñu borom dala dalay dala koy ja dalay jàppale te bañ a toqi mm-hmm. bañ a toqi bañ a tayal bañ a sonn bañ mm-hmm. ndax gis nga góor ñi dañu naan toujours sa àjjanay doom mi ngi ci suufu tànk ndëggu ndey mm-hmm. sa suufu tànk yaay nga ngay tarbiyu sa yaay dëgg la waaye àjjanay borom euh, jabar mu ngi ci sa suufu tànk borom këram boroom kër. Mhm. kon jàppale suñu borom kër yi. tette leen war na. Mhm. suturaal leen war na. Mhm. jàppale leen lu war la. moo tax tey jii ñu toog fi di wax ak yéen macha allah ndax roof yàqul jën te yaakaar naa ne daba suñu wax ji am na jéeg ju bari joo xamante ni si nag macha allah defar na leen dëgg la bu baax sax jéeg ju ci tërë woon rek boo dégloo ramatulaay docteur jéeg gi wala nga déglu ku mel ni daba ceena ak ñeneen ak ñeneen macha allah dinga nga defaru te nag roof yàqul jën ndax ki la takk indi la ci biir kër mhm. mu néew mu bari bu xëyee fudd mhm. dem liggéey wuti mhm. ñëw dara taxu koo sonn du biiram kese jaboot yow miy soxnaam ak ak njabootam sang njabootam moo tax muy sonn waa kon kooku lan moo war ci moom rama bu 17 nañu teral góor yi weeru koor jotee bi jotee sax sa yaram day daw da ngay gis xale bu góor buy wàcc ci dangay gàddu sa sachet wala sa mbuus mu leer na ni sa kër nga ko jëmale mhm. waaye yow ki nga xamante ne mi ngi def loolu bu ñëwee war naa fekk ah man de fekk fa pare waaw rama man damaa bëgg jeeg bu meloo ba 17 heures man damaa bëgg fesel man fesel ah. bu ma romb wala léegi dara seeratul rama xoola conteneur yi ci mbedd yi heure boo wàcc boo rombee conteneur ñi ngi teg vaisselle baraada kaas yu rafet yoo xamante ni boo demee du la dikk dara cinq cent lay jar wala mille francs te léegi dañ koy personnaliser bindal la ci ay chef jeex na takk <laughs> ak yeneen ak yeneen waaw waaw boo toogee ba korité des mhm. une semaine ngeen mel ni sama jëkkër mayeeku ma dara ba léegi waaw sa mhm. jëkkër la nga ko defal ci koor gi dëgg la lu tax mu war laa bàyyi xel ni sama jabar yi ma bégal ci koor gi mhm. heure bu plat mu teg tey bu subaa mu teg ca des wallaahi ndax koor yàlla moo ci def barke mhm. boo sombee sax neex loo def mu neex nga la waaye góorgóorlu ci ba sa jëkkër naw la ci nga gën a marqué say empreinte waaye danaan sama borom kër bii joxaguma dara de korite gi ñëw na joxaguma li joxaguma waaye loo ko defal ci koor gi tegal ko bagage yu bon tegal ko kaas bu njàpp ya dagg ak ak tegal ko tërmus boo xamante ni boo ko yëkkatee muy seet suuf tegal ko bisaab boo xam ne dama koo jël def ci ay colorant bu bu ko naanee xolam bii di fudd ba pare rama damaa bëgg weeru koor jeeg di ci naturel merci foofu laa doon jëm bisaab bu weex na naturel danga ciy def jus ba mu neex mu naturel bisaab bu xonk def ci sa naanaa ba mu neex nga def sa suukar su yem mu naturel mais sa borom kër mu war te mën na woor ngoon ba jot fi yem di xoos mu ñëw nga jaak gun ko koo xoosal mhm. mooy bisaab yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko coloré surtout loolu jus yi nga xamante ne ñu ngi koy jël di ko coloré léegi euh, nit ñi dañoo avancé jeeg ji mhm. mixeur yaa ngi fi mhm. jëndal sa orange xolli ko ba mu baax dugal ko ci mixeur di bés mu mel nekk jus nga xelli naturel jox sa borom kër mu naan man taamu naa jeeg buy def loolu mu am baa ngi fi comme dafa yem xel li waaw pressé ko ko citron baa ngi fi ah nga defaral sa jëkkër mu naan waaye bàyyi leen jus yu ngeen di coloré ba pare damaa bëgg bitéelu Evian yi ñuy def jus yi sànni leen ko dem leen jënd seen bitéel yu baax yu rafet def ci seen différence yu yem jarul sànni bu tey yooyu nga pour lan la xam nga man bëgguma sax nga defar bisaab ba pare da ci def glace am na nag géej mm. ju koy def dëgg la bu tey yooyu boo defee sa boo defaree sa jus ba pare mm. yaa ngi ko def si sa siwo defar nga defar ba mu naturel nga jël ko def si sa bouteille dugal sa frigo ci sa frigo. Mhm. balaa dog di jot. day fekk mu sedd guy boo paree nga jël ko daal di sotti ci sa ay carafe. Mhm. teg sa façon jus bu nekk. bu desee mën nga ko defaat ci bouteille yi daal di dugalaat ci frigo bi. Mhm. bu subaa la ngay defaraat sax mën naa am du bari. dégg nga. mais jël bouteille bouteille Evian yi teg ko pour sa jëkkër di xelli. ci kaas bëgguma jeeg boo xamante ne si da nga koy def. liwuñu kenn mais jéeg bu ko doon def tamit bu yeboo nga bàyyi ko parce mm. que léegi jéeg gi dañoo civilisé mais boo sax bu tey ko nga def ko ci karaasu vert merci mm. wala laa la wax mm. xam lu tax ma ma ma ma waxe foofu mm-hmm. góor ñi macha allah ñi ci ñi ci signé léegi benn jabar bareetul de déedéet ko ci signé sax fi da ngay dem di làqu di di am fooy dem di coro du ko ndox nga takk takk suuf maa la ko léegi nag bu fekkee mu gis sa loo xamante ni si yow mësoo ko ko defal mm-hmm. boo ko ko mësuta defal mu gis ko fee da koy dem takk suuf même bu dee benn jabar la signé mm. wala muy wër di doxante doo ci mën dara ak leer d'accord jabar nga ko teree takk parce que benn jabar la signé mais doxaan nag moom signé wuñ ko mm-hmm. bu boobaa kuy perte yow ma nekk ca biir kër ga jural ko ak njabootam yow yaay perte mm-hmm. moo tax ñuy waxtaan ak jéggi kon lii lépp ak defaru la wallaay dëgg la lii ak defaru la defaru la waaw jéeg bu ci bàyyeeku woon daal mm-hmm. bu dee nga takkaayuwaat laxasu na nga takkaayu laxasu profito mm-hmm. marquel say empreinte profito ci koor gi mm-hmm. képp ku ko daawul def profitowul ci koor gi bu koor gi jeexee nga continuer ko mm-hmm. képp sa gi jeexee dama dominé woon daaw rey fexeel ba bu mu la dominé waaw ko defee da nga koy continuer boo ko continuer rek bañ a bàyyeeku rek continuer jeex na boo ko xasee tàmm jeex na jeeg bu ci bàyyeeku woon yéen laay xelal jeeg bu bàyyi woon napp naan moo ki ma koy defal da koo jar jéeg bu fi bàyyi woon vaisselle yu rafet jéeg boo xamante ni si daawoo dressé daawoo togg ba mu neex weeru koor dañ koo fonk mhm. dañuy togg ba mu neex di jël seen dërëm di ci dolli te jéeg bu ci nekk mhm. bu fekkoon da sa jëkkër day xëy di la jox cinquante mille par weer sax war ngaa fecc sa lafu sër def ci dëgg la dangay defaral sa bopp tey dangay defaral sa borom kër ba pare defaral sa njaboot dama am na jéeg yoo xamante ne bu nu lalee ndog mhm. ba ndog ba pare fa lañ koy bàyyi dañ ko déj ji ma lay wax daf maa leer nañ waaw ni dañoo sonn dañoo sonn ay waaye ndogu nañ ci jàmm daal di jël sa loxo bàyyeeku daal di tëdd bàyyi fa gan ya ñëw fekk kaas ba fekk biteelu jus ba ubbeeku fekk su café ba ubbeeku pour lan jeeg day njax